alaikum population commune de Bambilor alaikum population Bambilor alaikum jeunesse de Bambilor maa ngi Abdou Karim Fikou que président du foyer des jeunes et de la culture de Bambilor maa ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi di nuyu ñepp ñi nga xamante ñu ngi dëkk Bambilor ak liko waaw merci beaucoup donc je pense que maa nuyu de passage wa Improd di rafetlu sen taxawaay ak sen liggéey waaw di wax ne juste information le bu bees bu ñëw bu jógee ci kilifa yi si si à savoir le sous-préfet ak le directeur du CEDEPSE. ndax euh, dañu doon xalaat ne date bi dafa nek date bo xamante ne ci ay fête la nek, té administration donc euh, fête duñ ko liggéey beneen bi aussi tamit ñi nga xamante ño wara organiser élection yi muy le directeur du CDEPS et ses collaborateurs am si ñoo xamante il n'habite pas dans Rufisque ñoom administration moo leen fi indi donc dañ leen fi affecté te ñenn ñi dëkkuñu ci ci ci Ndakaaru donc lolo waral ñoom ñu wooma le directeur du CDEPS tey ci suba la il faut ñu reporter date bi yóbbu ko le 8 janvier Inshallah, moy mooy dimanche bi di ñëw bisu top lool nak dañu bëgg ñom ñi nga xamantene ñom ñokay organiser mom buy ñëw da fay ak ak ak équipe bam bi nga xamanté ñom ñoo organiser mo waral tay ñam wara andal ñep comme ñom ñep ils sont en fête mo né mo tax ñu né mu né ñu nañ ko reporter ba le 8 janvier kon li ñu wax la date officielle maintenant et la date qui a été maintenue par les autorités moy assemblée générale bi le 8 janvier lañ ko yobbu ndax euh, assemblée générale ñun bi ñuy def c'est une assemblée générale extraordinaire euh, assemblée générale extraordinaire l'Assemblée, assemblée l'Assemblée, nous ne ñun dañu def suñu mandat ba suñu mandat jeex donc bureau bi fi nous yëpp ñu war ko dissoudre indiwaat un bureau bu baisse. donc ci kaw lolu le bureau sortant du mom moy organiser élection dafa am commission bo xamantene c'est un c'est une commission bu ñu tek bo xamantene comité bi gérer suivi ak organisation élection en collaboration avec les autorités administratives ndax ñom ñoy yombal liguey bi autorité yi ñom ñoy sensibiliser population yi ñom ñoy waxtaan ak doomu aadama yi surtout avec les candidats donc euh, ñom seen rôle ak seen responsabilité dafa am solo ci organisation assemblée générale bi ndax lolu moy tax tay ñom autorités yi seen xel dal xam li ñuy def ni dañ ko def ci jamm ak salam et vraiment gis nañ ne commission bu am solo la ndax dugal nañ ci le président du football club de Bambilor des conseils municipaux euh, le secrétaire général euh, du conseil communal de la jeunesse, des personnes ressources, à coiffé par le chef du village de Bambilor. Donc vraiment, c'est des personnes dignes, des personnes responsables. ñu que ba tënk ak ndey ji de bi nga commission bi nous suñu ko pour faciliter la tâche la pour tamit ñi xam Bambilor ñoo ñoo de baay ab la que le meilleur li nga xamante ne fa lañ jëm mais seen rôle ak seen responsabilité mooy jàppale organisation ba mu jàll ci jàmm ak salaam sensibiliser population yi ñu xam ne Bambilor ñoo ko bokk mais beneen bi aussi tamit ñu jaay carte de membre yi teg ko ci yoon ba du am par parloo ndax tey su doon peut-être man maa koy jaay mën nañoo ne am naa nangam wala am naa leneen ak leneen ak leneen mais commission boobu ñoom ñooñu d'ailleurs sax bokkuñu ci benn bureau te duñ ci duñu dañuy ñëw rek pour accompagner euh, xale yi donc ñoom looloo tax seen taxawaay aussi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax gis nañu ne depuis que ñuy wax assemblée générale bi ba tey gis nañ apaisement bi am dans Bambilor candidat yëpp ñu ngi campagne ñu ngi sensibilisante ñu ngi waxtaan ak seen ay seen ay morom di leen convaincre ku ci nekk yaa ngi tëral sa programme di ko doxal te gis nañu ne boobu ba léegi dégguñu benn coow bu ci am te loolu bokk na li gën li tax commission bi gëna a am solo ndax fay rassurer autorité donc vraiment nous ngi leen di jaajëfal bu baax. tous les candidats ñu xamné ñom sommes ñëpp d'abord sont des jeunes de Bambilor li leen animé c'est le devenir et le développement de Bambilor à travers ce foyer des jeunes. foyer des jeunes un patrimoine très xamantene une tay dafa am spécificité par rapport aux autres foyers kon ñom ñi nga xamantene qui nañ ay ndaw aspirer jité lu mel dama leen di ñaan ñu am la sens de responsabilité la sens d'écoute la sens d'écoute mais aussi ñu wax campagne ci jamm ak Salam, ba jour assemblée générale bi bu ñu ñëwé li nga xamante mom lañu gis muy air bo xamante vraiment nek na air bu paisible ñu mën ko continuer prôné ko ba directeur du CREPS bu ñëwé day fekk sax ñom pourquoi pas ñu waxtaan ba am consensus sen bir lool yëpp c'est des c'est des prérogatives yo xam war nañ ko mëna am sen bir ñu waxtaan boobu directeur CDEPS bu ñëwee ñoom dañ koy yombalal liggéey bi di wax ne rek ñu ngi leen di wax ne ñu gën a amaat rek xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay foyer bi kenn mënu ko séddoo Bambilor kenn mënu ko séddoo donc je lance un appel solennel à toute la jeunesse de Bambilor nañu sensibilisante waxtaan bokk ndey bokk baay ki nga xamante ne nii moom moo la ñu fal équipe bi ànd ak moom jàppale ko parce man j'ai vécu l'expérience dañuy gis yenn président yi tey bu ñu ñëwee bon nit ñi dañ leen di fal après dañ leen di dañ leen di laisser en rade du am suivi du am jàppale te loolu dafay bokk ci li gën a daaneel foyer bi donc bureau bi nga xamante ne moom mooy ñëw ak personnes yi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg a nekk ci comité directeur bi d'abord nañu mesurer l'importance du foyer des jeunes ndax foyer des jeunes dafa am ay patrimoine yoo xamante ne nii tey chiffre d'affaires bi buñ ko doon xayma ay xaalis bu baree baree baree bare la kon donc ñoom ñii ñëw nañu nekk des gence responsable ki ñu fal ñoo ñëpp ñu ànd ak moom gunge ko ba mu réussir mission ndax loolu bokk na ci li nga xamante ne man loolu laay sensibiliser candidat yëpp candidat yi aussi ñu xam ne ku ci nekk sa programme bi nga am soo ko déroulé ba le jour ñu jël fal keneen kooku ñu fal nañ indi seen programme ñun ñu ànd ak ñoom en tant que des anciens membres ñëw ànd ak ñoom jàppale leen ba ñu mën a réussir mission bi nga xamante ne moom la ñuy moom lañ moom la ñuy tënku loolu tey laay lancé appel di sant ñëpp di gërëm ñëpp mais aussi di sant le bureau sortant ndax tey ak lu mën a xew taxawu nañ ñu jàppale nañ ñu ba tey la ñu waroon a def ci liggéey ñu def ko ci transparence ak équité

Euh, maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di nuyu waa Mprod euh, ñi tey invité ma euh, di nuyu population Bambilor bi yëpp. bu ñu leen nuyoo ba pare di ñëw ci question bi ngeen ñu laaj muy comité bi lan moo ko sos il faut ñu ñëw si historique bi.

Euh, bi ñu toogee itam si lañ toog di waxtaan jël si ay décision yoo xam ne xam naa dinaa si ñëw ci kanam loolu pour wan leen ne comité bi li ko sos mooy pour age bi am si jàmm ba yàlla def ki xale yi fal ñu jàppale ko mu falu euh, teg euh, CD bu baax ba ñu commencé waat liggéey liggéey foyer bi. waaw nit ñi il faut mu rebondir tuuti itam si ginnaaw il faut ñu xam solos foyer des jeunes de Bambilor.

candidat laa candidat laa dafa dem ba nduru ay fo moo tax ñun comme li ñun lañ dénk fi ñu toog waxtaan ci ne ñun war nañ mën a fexe ba xam ne kii war a jiite foyer bi euh, le huit le premier la woon mais léegi le huit janvier la dañ ci ñëw euh, war na mën a am euh, conditions yi remplir conditions yi conditions yi nag li ñu wax defe naa ne dañ ci baamtu mooy bi njëkk avoir une carte de membre du foyer des jeunes Il des jeunes carte de membre être âgé de 18 à 35 ans euh, wax fu indi photocopie carte d'identité nationale casier judiciaire Yoy c'est pas que dañ ko laaj rek ndax foog nga am loolu pour mën a yóbbu PV bi au niveau du CEDEPS pour ñu enregistré joxe ñu ne foyer bi ñii ñoo ko jiite ñii ñoo ko jiite ñii ñoo ko jiite kon loolu ñuy laaj yëpp texte yi moo ko laaj beneen bi si bi ci topp mooy euh, certificat de résidence ñu ne nit ki tam mën dañ xam ne fii la dëkk quartier bii la dëkk bi si topp bi te ñun ñi ñu koy wax sax mooy niveau d'étude dañu ne kuy dem bay jiite la foyer des jeune de Bambilor war nga mën a lire et écrire loolu sax la ñu waxoon mais bi ñu waxee loolu ñun nit ki mënul ñëw rek ne damay déposer nan ngay xamee ne mën na lire wala mënul lire ñu ne léegi nañ xool nuñ ko defee niveau BFM je pense que ne defe naa critères yooyu la ñu wax mais képp koo ko remplir war nga mën a nekk candidat président foyer des jeunes. waaw ci loolu moi je pense que ne waruñu sa commentaire sax euh, c'est les autorités ñoo le président actuel du président foyer des jeunes Abdou Karim discuter ak ñoom jox le jox ko ay raisons c'est moi je pense que c'est des raisons administratives Il xam dit yu kilifa yi ñoom ñi nga présider le jour J, l'AG Nous bu doon ñun rek dina am le premier mais l'AG dafa am ñoo pour wane la solos AG bi le directeur du CEDEPS dafa war a ñëw ba le euh, sous-préfet am envoyé nit ki nga xam ne moko fi téwal kon nit ñi mëna nañ gën ne foyer bi du ay fo encore une fois encore une fois euh, le premier lañ japon mais tay lañ jot information né yóbbu nañ ko le 8 janvier une semaine après au euh, au niveau du foyer des jeunes lañ koy défé ba lieu bi changé wul heure bi changé wul le 8 dimanche 8 moy le euh, l'élection du foyer des jeunes de de et de la culture de Bambilor. moi je dis que comme je ma koy waxee. wax naa le foyer des jeunes ne ñi c'est quelque chose de très sérieux de très sérieux Nous savons que la présidence du foyer des jeunes rek mooy poste ci foyer bi tey le président équipe moi ko doit le moi je pense que nous ñi ci équipe l'équipe. la ñu war un président seul ne peut pas diriger.

mooy nit ñi bëgg falu dafa am ñoo xam ne dañuy falu léegi ne 33 yi fal nañ la bu ñu woote waatee réunion 11 ngay gis wala 12. képp koo xam ne amoo benn benn benn benn ambition bokk ci foyer bi doxal bu jour boobaa jarul nga yëkki sa loxo nañu bàyyi 33 la ñuy soxla nañu dëkk bi yaatu na nañ bàyyi 33 yi nga xam ne ñoom tam ñoom ñoo jóg. pour ne dañuy liggéeyal foyer bi pour ci mandat bi ñuy ñoo xam déterminé wu le foyer bi tey marche bi ñu le 8. je pense que nous, war le mën foyer bi ci yoon go xamné le foyer de euh, Bambilor day donne exemple pour toujours encore une fois buñ ko def yëfu koñ koñ buñ ko def yëfu ethnie buñ ko def yëfu yooyu yëpp encore une fois li c'est le foyer des jeunes et de la culture de Bambilor